waaw jërëjëf donc maa ngi tudd Ali Sané di coordonnateur projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel du Paris donc di wax ne rek dañu kontaan trop ci visite bi ñu fi ñëw ci ñaari fan yi Saint-Louis voilà di leen xamal daal ne plateforme bi gis nañu ne lu nit ñi soxla woon la parce que aussi baykat bu fekkee am na fu mu war a mën a toog wax fa ay problème am indi fa ay xam-xam mais jëlee fa aussi ay xam-xam pour régler ay problème am je pense que lu am solo la li ma leen di wax rek mooy plateforme bi Paris moo koy faciliter mooy yombalal mu nekk dina yombal aussi ni muy fonctionner mais ngeen xam ne yéen yéen a ko war a fonctionner lu waaw kon tey bu doxee dinañu ne yéen la bu doxul aussi il faut ñu tudd leen ci parce que yéen ko war a téye pour mu dox. loolu la bëggone ne ngeen xamé ko nonu di leen wax dal ne amul benn sujet bo xamni day concerner irrigation bo xamni mënuñ ko fa waxtaanee waaw mën nañ ko fa waxtaanee jëlé fa ay solution té solution yi du toujours rek xaaliss bu ñuy indi pour am luñu défar mais dina nek xam-xam buñ fay jëlé pour ñëw fajj ay soxla waaw loolu dal la bëggone ñu xamé ko nonu su ko defee incha bu ñu liggéeyee ñun ñëpp. pour que plateforme bi dox ni mu war a doxee te ñëpp loolu la xaar am nañ yaakaar ne solution yu bari dinañ ko mën a faj ci cadre plateforme boobu ñu mettre